tey nag damaa ñëwoon seet si ki nga animateur bi nga xam ni latewul animateur bi nga xamante ne daf day day day day day day day fay di dem fu ne di jàngi comprendre nga ba jël ay trophée si animé Sofia nuyu naa la. Mbaye maa lay fay. waaw waaye si jàmm ay Mbaye ma sonn nii. non non nii nii moo gën. nii nii yow ñëpp xam nañ ne sëykat nga sa wetu jëkkër rek demoo fenn taxawaalu woo yoroo sa oto bu rafet bii rek xam nga fu ne nga lambar lambari fa. meloo ne animateur yi yow yaa animateur seul personne boo xamante ni yaa gën a silencieux man sa liggéey chaque jour ñu ngi gis développement yi nga xam ne waa 2STV la ko dañ lay développé tey yaa ngi fii di la yokkal say plateau eh. waaw. acca lan mooy sa eh. secret Sofia. waa dara comme li nga wax rek euh, artiste moom la te baaxu ci. Uh-huh. Euh, uh-huh. ci euh, li nga xam ne moom mooy discrétion. Uh-huh. sunu fort en Euh, sa trophée dañoo gisoon keroog si réseaux sociaux yi nga gagné nga dem xaw ma ban dëkk gagné fa benn trophée trophée bu lan la. waaw trophée meilleur chroniqueur la. Mhm. waaw ñu choisir ma parmi les meilleurs au Sénégal. Mhm. ma dem représenté dignement mon pays. Mhm. ñu jël ko rek sénégalais jàpp ci voté en masse. loolu rek la ban animateur la. yow kase kase kase. non man Sénégal man la. yow parti chroniqueur waaw. léegi est-ce que est-ce que animateurs yi euh, ñu roy si yow. non gars ay nañ de arrêté yow. non non non man. gars yi ñu ma gën a tàng si ne non non man liñ ma xamee dëgg laay wax. moo tax ah, fu ma waxee nit ñi dañ may déglu <laughs> dinaa bëri ay critique nag mais euh, man dëgg laay wax. Mhm. waaw man du ma du ma du ma jay kenn du ma ne yàllaa ngi nii xam nga Sénégal dañuy gis nen ne non non dugg nen ay xeer la <laughs> man nag damay gis nen ne nen a ngi. waaw kay. loolu moom am na yow da ngaa baax. Ah. yow instant yaay meilleur influenceur. Sénégal. loolu la yàlla data kenn mënu ci dara loolu. seulement dañoo gisoon ngay nga nekk chroniqueur nga nekk chroniqueur. seen 2 mu dem ba ñu commencé la faa jox ay plateau yu rëy rëy rëy. waaw waaw bon liggéey rek ah. liggéey rek je pense boo liggéeyee moom li nga liggéey moom ngay fayee. donc moo tax ñun ci lu ñu nekk ci lu ñu bokk ci lu ñu bëgg di ci liggéey. Mhm. donc dañ ciy gën a jox ak rek. Euh, pour que sunu njiit yi fa nekk mën ñoo gën a mën a jox confiance. Mhm. voilà loolu duñ gis si réseaux yi duñ gis si dara doo wax dara ah si jëkkër dañoo gis tamit ñu ne dañoo am benn affaire boo xamante ne sénégalais dañ ko jox nitu télé yi dañ ne nitu télé yi duñu sëy suñu sëyee un mois deux mois tas. yow bi nga sëyee ba tey jur nga ay njaboot toog si wetu jëkkër. waaw man am naa benn Cheikhul Khadim. Mhm. taaw bi. moom moo waaw. Mhm. cinq de mariage macha mhm. allah alhamdulilah yal na jëm kanam. Ah. famille bi ma bokk nag nañ ma ñaanal rek. ah si ban famille nga bokk. famille bu baax rek ba diñ ba diñ nga diñee nii. <laughs> bu baax rek loolu la rek. animé ñu ngi sant yàlla bu baax. dem doo dem sax soirée. waaw waaw. gëj naa non kañ laay dem sax man ah. naa génn de. Mm. monsieur bu ñëwee nag faaw ñu génn nag. ah ana monsieur bon il est il est il est à à l'extérieur. Mm-hmm. mais moom du fi géej. Mm-hmm. deux mois trois mois il est là. Mm-hmm. ah loolu looy wax sa sa sa sa kii euh, kii Cheikh Yérim Dak te euh, sa xarit euh, sa sa ko. sama collègue waaw reménage reménage à eux. waaw ah, lan moo tax mu nangu troisième kii bi. ah yow mbëggeel. ak ànd. lu yàlla takkee sa aras. kenn da cee mën ak li ko nit ñi bëggee woon ñu gisante bëggante loofante takkante. Ah, ak li ko ñi mu gën sécuriser ak li ko nit ñi bëggee woon. ah mais ba tey nit ñi dañ koy gën a bëgg yàlla. non ni nit ñi oh, xale ah, daa saf ñëpp de. non non non non instant bi instant bi ay viam day wàññeeku. non elle est trop professionnelle. ça n'a rien à voir le travail ak vie privée loolu moom du dara nañ ko ñaana rek xale la. Mm. day doog a dugg ci mm. nañ ko buux ñaanal ko yàlla defal ko jàmm ak sutura. Mm. sëy bu barke. lan ngay wax léegi euh, jeune animateurs yi nekk si dëkk bi jeune animateurs yi nga xam ne amuñu euh, amaguñu jëkkër dañ ne pour ñoom pour ñu avancer seen liggéey rek il faut ñuy def prono euh, promotion canapé te yow yaa ngi toog sa jëkkër yaa ngi toog sa jëkkër sa promotion mi ngi gën a yokk non loolu yàgg naa ko wax il faut ñu ànd ak patience ak gëm seen bopp je pense bu ñu ko defee rek loolu dina leen wan yoon quoi yenn moom dara jarta ñaaw dara jarta yàqam ci parce que fii lu loolu lu nekk da donc ak sa bëgg-bëgg lu mu mënti demee ne il faut nga ànd ceeg tey ak daal pour am lu parce que fi nekk nii xale jigéen boo gis siiw lay kii mi ngi rêvé toog si télé. Mhm. jigéen boo gis mi ngi rêvé toog si télé am na ñoo xamante ne dañ naan ko soo amee jëkkër soo demee ba am jëkkër Euh, doo kii euh, ah, doo doo avancé te yow nga gëm loolu toog sa jëkkër di gën a avancé bokkul ngay demee je pense que nee naa mm-hmm. benn yar yi benn gëm-gëm yi du benn boo gëmee ne da ngay sëy da boo gëmee ne bëggoo sëy wala amagoo jëkkër wala yàlla dimbaleeku la nga am euh, koo xam ni boole na leen mm-hmm. dañu patienté rek yàlla moom ñun lim ñu jox lépp pour ñun la donc nañ ko ñaan rek yàlla baax ñu gis ah, fan yaa ngi si euh, euh, commencé woon nga benn plateau bu boo xamante ne si defe naa si dëkk yi nga ko doon def si dëkk yi di ko def loolal la. waaw surprise la. loolu surprise la commencé gul daw. def ci kot ah commencé gul daw. bisu ngoone yi sonn na sonal nga ko nag. non kooku sama mag la yow. non non non non Sofia mosoo gis entreprise. non mosoo gis entreprise boo xamante ne yow mi nga xam ne yow lañ jël. comprendre nga def la favori ñeneen ñi nga xam ne ñoo fa nekk dañuy frustré wu. non sans ñu wax la ko. mais ñu ngi frustré wu. non man Bijou moo ma jiitu ci télé ba. waaw waaw da ngeen di da ngeen frustré wu avant télé ba déjà. Hmm. avant télé ba rek ñoo bokk benn koñ. donc non non non da ngay gis mag taxaw da ngay dama ñëw fekk fa topp ci ginnaaw mu wan ma. yoon maa ngi ci ginnaaw non non da ngay gis mag ak rek taxawal. da ngay gis mag la da ngay gis mag ak rek bokk benn métier. mais da ngay gis ñuy siisante frustration day am non non loolu amu fa nag loolu moom amu deux te bijou moom fa laa fekk mi ngi may woon yoon maa ngi ci ginnaaw non est-ce que mi ngi lay yoon parce que avant télé ba ñun dañu sekk jaam te ay mbokk lañ donc euh, mais non non mais yow derrière elle en fait ah yow fi mu nekk nii hmm. fi mu nekk nii yow macha allah moom benn émission la fa am non yow kii lu muy wax. non la de. non non taxawal <laughs> benn émission la fa am. mais yow yaa gën a ñu ngi lay la yokkal ay say émission di la yokkal fu ne ñu yóbbu la fa <laughs> comprendre nga. nga trop. eh bii si neexut a dab de bii si kenn du ko dab de gaynde la de. mais su doon gaynde a jël dina jël trophée mais musul jël trophée. non en tout cas ah. eh, eh, eh, si si am na ay trophée ah. yan trophée ah, lu tax fësalu fësalu. bay bàyyi bisu da lay mbëkk de yaa xam nga ni bisu mooy loolu gaynde la mag la sama xarit la. te émission bi te émission bi sax dafa commencé fay. kenn seetaantu ko. waaye kii lan la moom. <laughs> nekk ci jàmm. kenn seetaan coupé eh, eh, coupé coupé. sa yoon nekku si yow sa yoon nekku si sa yoon nekk damay def émission. <laughs> ah kooku daanaan la. ah sama mag la sama xarit la sama sama sama lépp la. Mm. moo ma wan yoon moo ma yar. donc mm-hmm. euh, maa ngi ci ginnaaw. mbay kooku sama seex eh, eh, eh, li muy def nit ñi li ñi laa koy def waaye. yow ah, ah, ah, mais man moom man moom t'inquiète man moom sama waay la. mais mais léegi sa sa dernière kii li nga xam ne laajuñu laajuñu la ko gis nañ euh, Idali ak euh, kii am délégué doon xeexal benn kii si ki doon saaga waale dem ba yoon teg leen loxo. muy suñu xarit xam nga ñu doon nekk si presse beeg yooyu yëpp lool loo siy wax te gis ñu kenn def ci intervention. yàlla na jàmm yàgg rek. wax dëgg yàlla yooyu man dama ci xam dara xam nga yow wax nga ko léegi man bu ma wàccee maa ngi sama kër tëju naa yu bëri xaw ma ko. <laughs> yàlla seede na loolu. Sénégal daal yàlla na yàlla def jàmm. nit ñi am jàmm te nañu ut jàmm loolu daal je pense bu ñu ko defee dinañ nekk jàmm. ah, ah waaw. demoon nga sax ñu waxante jàmm. di ah. defante jàmm sekkante jàmm. Ah. ci la lépp xaj. yow nekk ak jàmm rek jaajëf sa waaw ni maa leer na tax yëgu ma loolu. ah <laughs> waaw nag yëngu ko nag. <laughs> ah dóor. Hmm. ah fii de ku fi tooñ moom ñu teg la ci yoon. Hmm. man de man ak hmm. nga dégg bi ngay dégg ñuy saaga Wally nan la lay def da lay métti wala da ah <laughs> waaw. ah kon ñoom kon dañoo fiiree. Hmm. waalee toll noonu ku sañoon toll fi waaye toll ñu lay saaga saaga taxul fenn diw te waalee gi yokku ku sañoon laa la wax. Hmm. toll fi waaye toll ñu lay saaga. muy hmm. yow muy keneen ak keneen ak keneen ku sañoon am li waalee am léegi ñu lay saaga. waaw ku ku ku ku boot bu kii nag xaj baw la. waaw ku xam waalee nag yàlla dimbali ngay borom xel gis li waalee li ko yàlla dafa lépp. buñ koy saaga nag waru koo mën a jéggale mm. war nga nekk leer bu dee borom xel nga laa mm. xam nga nit ñi réew am ay nit am ay dof ah, ah, ah. waaw waxuma ak dof yi borom xel laay wax bu dee borom xel nga nga bëgg waaye ku takkoon ay rajo fii nii te koy oppaan la ni mag ngi doon jaaye bu njëkk ba seeni garam di wër ci benn di saaga waaye sek xam nga lay si tànk toog di reetaan R plus six na tabax fii nii ascenseur yaa ngi dégg ay Rolls Royce lay dawal kii ni oori ci loxoom yaa ngi ak ci baatam. muy dox ñu koy neex di sol yére yi seet di tol ay saal daal trois cent trois millions. waaye kooku kay bu ñu koy saaga nag si waa Sikaal nga ne yaa ngi koy xeexal xam nga manqué nga nag. <laughs> wala yaa ngi dóori ndax loolu nga manqué nga. <laughs> du ma def di war. <laughs> allah loolu la ñaanal. ñaan jàmm. ci réew mi. ñaanal mm-hmm. leen yàlla defal leen jàmm te ubbi seeni i bët ubbi seen xel. Mm-hmm. defar seen i jikko. Mm-hmm. bañ mën di jéggale. bañ mën a xam àdduna. xam ne dara jaru fi parax parax yi. dara jaru fi guerre. dara jaru fi rayante. waaw dara jaru ko kenn jaru ko. waaw nañ góorgóorlu gëm suñ bopp xam liñ doon xam fiñ jëm xam liñ bëgg loolu moom importance ci ay jeunes. waaw loolu mooy jàppale ab réew. loolu mooy jàppale doxinu réew mooy xam sa bopp. Mm-hmm. xam fi ngay teg sa xam fa nga jëm. Mm-hmm. léegi dañuy lan waaye moo tax def si benn kii gars yëpp loolu la ñuy si lan moo tax. waaye def si boobu léegi mm-hmm. nekk man nekk boobu noonu dèjà. dama demoon Côte d'Ivoire. ñëpp si enchaîné dem Kaolack tey naa ñëw nii. moo tax xamaguma yooyu yëpp lu ci xew ak maa ngi yaa ma informé léegi que ni. dañu leen ma yëguma ko woon sax. kon nag xam nga loolu wax ci wax waaye loo xam ne wax ko wala. xaw ma ko. Mhm. waaw du sama yëf man. Mhm. waaw moo tax xam naa su ma ci a leeral. Mhm. yow daal fu ne ni mbay ñëw nga sama oto def nga interview def nga émission yaa ngi dégg ñëw dama laa nam ma dugg ko defal ah, ma ne defal di defal émission ah. émission nga def lii nag waaye lii fu muy dugg youtube la wala fu muy dugg ah yow daal di nga jékki-jékki rek coono day <laughs> dugg Ada yi ci non lii dugalal fu dugalal fu man waxatu ma wàcc <laughs> am na mbay Kouthia mbay Yves. Eh, eh, am ñu woote. <laughs> waaw bu ma dugal lan moo tax ñu may woo. dugalal dugalal fu la neex. <laughs> waaw maa ngi lay ñaanal maa gën a waaw comme te na nga woo sénégalais yi wax ci li nga ne. kon hmm. ah, waaw yàlla baax maa ngi ci lii nii rek doxantu lekk naan jàpp sama jàmm. Ah. waxal sénégalais yi ci li ah. waxal entre dem Kouthia ak Yves fan nga ne. <laughs> jaajëf jaajëf